kàttan askanu Sénégal ràññeeku si mim réew mu baax lool si góor gu tële ba góor gu gaaw a daanu résultat bi di joni joni gaaw lool ba mel ni melax ku si bëgg lu leer mën nga ñëw contacter si numéro téléphone yii ngeen di gis. ñoo ko gisandoo affaire baa ngi bëgg a doon politique moo génn dafa contacter Kaliphone dem leen seetaan vidéo bi daan ko damaa bëgg nga bokk sama staff yaa ngi dégg liggéey bi rafet na ma envoyé la jet privé nga dugg si jet privé bi ñëw Kali daal di contacter Fatoumata benn xaritam. Kali nag dafa mel ne dafa kontaan ci affaire yi ndax nee na ku sañoon si Sénégalais yi moo gën dina la woo téléphone méttante contact ak yow ñu bëri ci Sénégalais yi bu leen moo gën woon ñu tëb comme que yàlla fii la ko jaarale xam naa moom tamit kontaan na te bëgg na ci loolu yaa ngi dégg affaire bi mi ngi doon doon politique moo boo amee problème personnel réglé ko am man Wally Seck foo ko laalee ma teppi sa tuuru ndey foo duggee ci dinaadi waaye ma daqaar sa ndey ak koo yaakaar ñëwal nga def plainte man damaa tooñ jéggalu Sénégalais yi ba sama yaay laa ci sama papa ak sama waa famille du ragal du cott ndeyam koo yaakaar defal say plainte gi ñëw ma jël plainte yi rof ko sët lëfal ndey moo gét man maay wax man Adama Boss day léegi ni affaire yi politique la bëgg a doon politique la bëgg a doon seen data ndey yéen ñëpp gis naa appel yi gis naa message yi gis naa taxaw bi sama yaay maam jaara femme député du peuple léegi léegi la coupé ak man ndeysaan mu ngi naan mu ngi Casamance Ousmane Sonko lay xaar foog naa léegi léegi la coupeek man maam jaara femme député du peuple muy nit ku baax woo ma nag wax ma lu bari ne ma Kaliphone moo ma too sa bopp maay sa yaay xamal ni maa la moom ndeysaan muy yëg-yëg muy yëg-yëg parce que mënoon na dégg Kaliphone ne na pare na mu noppi ak yeneen i nit mais ñépp ma woo yéen ñi ma woo ñëpp ak ñi ma woo jotuñu ma appel yi bëri na trop macha allah appel yi bëri na euh, may kontaane tamit sama sister Pendo gise moom it ndeysaan woo ma depuis démb si quatre heures du matin quatre heures du matin la ma Pendo Guissé di ma woo ndeysaan muy sœur bu baax ma pare tuuti frère am gise tamit woo ma ñoom Sokono Stress Espagne ak yeneen artiste woo ne ma Kaliphone dañ lay waajal sax chanson dañ lay waajal yow wéyal la démb suguti nelaw ma appel yi ma toog tuuti ni may waxee pendoo gisee ma gis benn message am ku ma bind ne ma salut c'est moo mon guide appelle-moi c'est mon mon guide waaw moo géet nag yaakaar naa ni Sénégalais yëpp xam nañ ko comme ni ko Kaliphone xamee si réseau sociaux yi mosuma wax ak moom aw ma numéro am nag waaw bu ma amoon numéro yi tamit du ma ko bañ parce que yaakaaraan naa ñu bëri Sénégal tey ñu ngi wër numéro sénégalais boobu di Mo Gates bii. lii raguma ko sista yow gis naa yónnee nga ma Sénégal euh, message yu bëri mais ko parce que maa ngi woon si WhatsApp bi te message nga ma yónnee di la jaajëfal aw manga may nuyu sama frère Kaysi Fof moom it fajar la ma woo messageur fajar. ne ma dama gis affaire bi metti na ma bul découragé bul bàyyi kay si foofu muy patriote nag mu def lu nice parce que munoon na toog kay si foofu dégg Californie nee na bàyyi na wala leneen mu toog live am commencé dénigrer mbala mu bind texte ne ñoom Californie gëmuñu combat bi mais kay si foofu dama koy jaajëfal nit ku baax la kii Senghor ndeysaan maa ngi lay fàtte sax Rosalie gis naa message liire guma ko yaa ngi Amérique sama sista boobu gis naa sa message mais boo xoolee vi liire guma ko message yee bëri ndeysaan Mariama Sané Suzanne Sambou Sarr Gélem ak euh, gars yi bëri Astoufal nuy naa la amul fu appel jugewul jultre Touré maa ngi lay ba mu yeewoo gis naa say appel yu bëri bàyyil nga ma ñett message mais boo xoolee lii rëgguma ko appel yee bëri appel yi ñoo bëri waaw comme ni ma koy waxee may wax ak sama sœur Pendo gisee foog naa ba ma coupé Pendo Guissé beneen sœur laa doon waxal muy Mbaye nga ah, foog naa ñu ngi wax ma gis message bu ñëw si WhatsApp bi mu bind salut moo mon guide appelle-moi si libre donc si laa wax kii am na ku ma bind message ne mooy moo géet bon ma ne est-ce que moom la mais ma ne bu du loon moom du ma du ma ne appel moi bu doon dóorkat yi la peut-être dañu ne c'est moo géet je te mais kun comme nee na appel moi rek kon moom la bon ma ne après dinaa ko ma continuer di wax ak ki ma doon wax ak téléphone moom si boppam mu woo ma appel vidéo di dugg appel vidéo ma ne ki ma doon woo moo gét bi bind ma message ne appel moi woowaguma ko mais moom en personne maa ngis gis appel vidéo mu ngi dugg mu ngi bind moo gét ma gis photo donc ma ne kooku may ma ma jël ko xool ma décroché ko muy moom mu toog te mooy sa kiiwam yooyu ndeysaan ne ma Kaliphone ma ne ko waaw ah, mu ne yee commencé waxtaan man ñu wax lu yàgg waaw te dinaa wane heure bu ma wook yooyu parce que damay bañ parce que dafa am lu jota xew fan yi mooy affaire Adamo bi damay bañ ay nit yaakaar ni moo nekkoon sama ginnaaw avant déedéet ba mu gisee ma def li may def démb la doog a dugg contact ak man ba ñu waxee si loolu tamit euh, si laa ko ni def naa léegi live sax ne bàyyi naa lépp luy kii mu ne ma man daal en tout cas xaw ma da ngay bàyyi wala leneen mais man maa la soxla si sama staff man maa lay dugal si sama staff maa la choisir mu ne xam nga lii yombul ay nit dañuy wër sama numéro sax di ma woo ma ko ok mu ne ma mais yow maa lijjanti sa numéro maa la woo ñu jàkkaarloo vidéo kenn doxul intermédiaire sama diggante ki yow maa lijjanti sa numéro waaw def naa ay vidéo ak ñoom saa neex ngonal Ah, Diop ah, Awa <laughs> man la kay man la <laughs> yàlla jàpp leen si rek bàyyi leen kaañoo bi waaw parce que lu fort la ci man parce que xam naa ni moo gét c'est un sénégalais bu dund États-Unis sénégalais yi bari xam ko yaakaar naa ni ñu bari tey bu ñu amoon moo gét woo leen téléphone dañuy kontaan waa man nag daf ma woo quatre heures du matin mu woowaat ma ay midi léegi léegi la coupé ak man amul encore dix minutes te si noonu tamit wax dëgg fa yàlla ba ñu waxtaanee lu ñuy waxtaan tamit vraiment nee naa ko man it dama am sama confidente dama am sama xarit dama am sama jigéen si lépp lu may dugal dama ko siy dugal muy sama sista Fatoumata Dansokho ma dugal sama sista Fatoumata Dansokho si appel bi présenté ko ma ne ko Fatoumata Dansoxo kii mooy moo géet démb la dugg ak man contact wax ak man lu muy wax ak man daf ma soxla ci estafam donc Fatoumata Dansoxo déglu ñu moo géet déglu ñu donc ñu présenté am lu ñu waxtaane nag waxtaane nañ lu bëri nag waaw ba sax <laughs> lu gars yi sama noon yi lu ñuy bañ nee na ma bu la neexee semaine prochaine nga ñëw Las Vegas la xaw ma lan ñu def live ma ak yow Las Vegas wax ma bu dee pare nga <laughs> ma ne ko may ma tuuti ma ma réfléchir <laughs> parce que privé bi <laughs> noonu yi ma doon gis Sénégal laa jëm jékki-jékki gis ma Las Vegas mën naa jaar foofu faatu may ma woo sama maam yi ñu gën ma sangaat du dëgg mu ne ma def naa live ak ñoom Tange Tandian def naa live ak euh, euh, émission ak ñoom euh, Tange Tandian ak kan foog naa Bécaye Mbaye ak ñoom Sanex je pense wax ma boo paree nga ñëw Las Vegas bu la neexee semaine bii weekend bi nga ñëw <laughs> ma ne ko borom doole xamul ndànk donc nag vraiment mu wax ma lu bari tamit ci lu mu bëgg ñu ànd ñu liggéey waaw loolu du waxu kaw après la waaw maanaam lu ñuy naan yàlla du tëj buntu tëj palanteer parce que gis ngeen gars yi fan yëpp lu leen doon wax ñu ngi may sonal si signale signale di ma signaler Facebook di ma signaler YouTube di ma signaler TikTok léegi yàlla ne signaler ngeen nag xaaral ma branché booy bi feneen foo xam ne mënu leen signaler kooku xanaa moo gét nag mënu leen ko woo nag ne ko booy bi dëmm la moo gét bañati ma woo léegi léegi la coupé amul deux minutes. waaw euh, Ibrahima Mbaye xaaral ma bloqué la nga génn sama live doo too fi commenté ay cey xaalis cey leneen yow tey bu moo gét woo woon doo fanaan doo yendu xaaral ma bloqué la quoi parce que man Ibrahima mbay bloqué ok yow si nit ñu soxar ñi nga bokk yow si noon yi nga bokk si nit ñu añaan yi nga bokk naan ay cey xaalis bu la moo gét woo woon hmm? nga tëgg rëmtëmbëtëm sa koñ ah <laughs> da ngay fontu rek <laughs> da am na ñu soxor ah moom dama ko boloke ko gul de Ibrahima mbay bi moom laa jéem boloke mais moom ma boloke ko rek muy cey xaalis cey xaalis xaw ma lan ak lan si nuy naa la <laughs> cey sama gaay kenn xam loolu Youssou Ndour woyoon na ko nag boo defee lii ñu ne la lële nga def lële ñu ne la xaw la lan ak lan c'est ça quoi hmm? euh... ouais, Papiste nee na Las Vegas xanaa tuguloor nga damaa xamul tur bi damaa xamul tur bi Las Vegas la wax Las Vegas Las Vegas la ma wax de Kali à Las Vegas en Las Vegas lañ koy waxe damaa xamut damaa xamut xam nga nga toog nga toog xamoo kuy Mor Guèye dégg naa ni milliardaire la moom ci boppam la milliardaire ñëw dugg contact ak Kaliphone ne ko Kaliphone j'ai besoin de toi man maa la soxla si sama staff tu vas venir tu vas travailler avec moi waaw waaw ñu waxtaan si nag mhm. ku koy bañ kaay ñu liggéey koo ko wax te mu bëgg liggéey day ànd ak yow liggéey ñun ay jeune la nuti ay ndaw lañu moom woowu ne Kaliphone kaay ñu mandi de déedéet waxul Kaliphone kaay ñu taasu kalifon dama lay jël nga ànd ak man liggéey ah Thank you.